général mooy que gis nga institution Sénégal de façon globale dafay am solo que tous les acteurs politiques sénégalais pour ne pas dire tous les sénégalais ñu jox leen seen i gëdd respecter leen parce que nag comme ni ma koy faral di waxee ku dee da nga engagé wu dans une compétition da ngay nangu arbitrage compétition boobu waaye boo nee arbitre yi fi nekk yëpp baaxuñu waaye dinaa bokk ci compétition bi dafay poser problème pour pour dire quoi exactement tey euh, le juge euh, Sabassi Faye bu Ziguinchor joxe na une décision juridique et pour une rare fois ma gis quand même l'opposition sénégalaise ñu saluer ko surtout ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci parti PASTEF ba woon parce que aussi faut pas qu'on l'oublie il y a une décision juridique bu dissoudre le parti PASTEF kon bu dee dañuy saluer au moins pour une première fois une décision de justice war nañu jàngat loolu wax ni rekk justice su Sénégal à chaque fois bu décider bu juger dafay juger ci aqulaayu taalam day juger pour le peuple le juge ne donne pas une décision judiciaire sur la tête du client daf koy joxe sur la base mais ci li nga xam ne moom en tant que juge conviction boobu la am parce que loolu mooy serment bu mu def kon bu ñu gisee tey jugement bi nga xam ne moo tukkee Ziguinchor ñu saluer ko dañu bëgg a rappeler ñi nga xam ne ñoom ñëpp lañ ko bokkal muy tous les sénégalais de tous les bords nañu fexee gën a wecc justice boobu nangul ko parce que nag dafa bëri ay jugement yoo xam ne à chaque fois dañuy rejeter ce que l'autre appelle les impressions judiciaires daf ciy bëri tellement que finalement on cherche à jeter à tout moment du discrédit que de besoin dafay génne benn list des agents yoo xam ne ils sont frappés par des délits de justice ou des choses de cette nature te loolu conséquence bi mooy dafay am ñenn ñoo xam ne dañ leen di retirer des listes électorales ak ñenn ñu ñuy raje loolu comme lu mu doon xewee noonu la xewee depuis le 11 juillet bi mu xewee nag un sieur bi nga xam ne def ci bokk Ousmane Sonko pour ne pas le nommer moom moo def recours déposé ko Ziguinchor juge boobu en toute indépendance et en toute responsabilité joxe verdict bu joxe verdict mais verdict boobu aussi du verdict boo xam ne ça arrive au niveau de du ministère en charge des élections notamment le ministère de l'intérieur via la presse ou autre dafay am circuit bu muy jaar dal di yegsi foofu bu yegsee foofu aussi ñu en toute responsabilité ñu tirer toute les conséquences qui découlent de la décision du juge à partir de ce moment euh, tey bi may avant avant biñ ma woowee pour wax ma émission bi dama ni woon est-ce que question boobu war naa ko aborder pour une raison toute simple te loolu aussi dafay am solo ñu wax ko dis nga Sénégal ñuy wax dañoo bëri wante ñi xam li xew war cee wax ñooñu dencu bëriwul luñ ci wax parce que quand par exemple euh, le juge Sabassi Faye a donné son verdict direction des élections recevoir un mandataire de Sonko renvoyer ko mm -hmm. ce qui est logique bu dee dañu bëgg clarification mooy que la presse alors que le euh, joxe na li nga xamante ne moom mooy euh, verdict li ci logique mooy li ci logique mooy mhm. sawru mu ci xamul dara te bëgg sénégalais yi xam mu dal di dem directement tendre le micro au ministère retirer ses fiches gis nga bu ñu ñëwee wax leen ko en toute responsabilité et en toute transparence ministère de l'intérieur ne leen lii moo tax mais est que code électoral bi loolu la wax non mais dama lay dama lay wax article 47 alinéa 4 way dafa ne bu bu décision justice wàccee mhm. maanaam dañ ko war a dañ ko war a maanaam exécuter immédiatement mais dafa mel ni c'est le contraire tey jii li ñu gis te li nga xamante ne moom la euh, euh, maanaam DGE def gis nga xëy na loolu nga noté mais même loolu tey bu amoon nous sommes dans un pays organisé encore une fois de plus te gis nga les question elles ne se règlent pas non pas dans la rue ou via presse comme ça mais man je suis sénégalais je considère moi personnellement que am na loo xam ne droit moo ma may te ñu bëgg ma ko xañ mais je m'adresse à l'institution judiciaire qu'est-ce qui empêche aux concernés bu ñu jàppee ni décision boobu dañ ko war a automatiquement appliquer ñu adressé wu à qui de droit mais est que est-ce que du woon du woon gën a baax maanaam mandataire bi dem dem fi nga xamante ne mooy euh, DGE ngay mhm. jox ko li nga xamante ne mooy maanaam ces ces fiches mu dem defi parrainage mais bu dee après affaire dañuy dem dañuy cassation ata xaama jeexal mhm. bu dee sax après gars yi dañuy dañuy dem cour suprême mhm. bu dee sax dafa maanaam décision validé ko mais mu retiré waat ses fiches mais est-ce que jox rek mu mu mu gën a apaiser li nga xamante ne mooy maanaam mooy mooy les il n'y a pas une voie plus autorisée que la voie du ministère de l'Intérieur via la direction des élections pour justifier la décision de la direction des élections. D'accord, merci loolu moo tax ma ne la droit pour droit bu ñu nekkee dans un pays organisé te ñépp nangul les juges sénégalais leur probité intellectuelle leur caractère responsable face à un Sénégalais qui a des besoins juridiques